wax auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim gannaaw ba ma sante yàlla jullu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu mboolem seen ko ñuy seetaan ak di ñu déglu di leen ñaanal ñoom ñëpp jàmm di leen ñaanal yàlla mu musal leen ci li nga xam ni mooy mbas mi wër àdduna ñu ci génn àdduna yàlla na leen yàlla xare àdduna àjjana te muy Euh, doon isaab ci ñoom ndax euh, ni waxee ci lislaam ni yi fii bu amee ku ci génn àddina yàlla mën na laa yërëm yàlla na leen yàlla yërëm di masawu seen njaboot ñi mu dal yàlla nañ jóg ñi mu dalagul yàlla buñ ko am yal na yàlla def ci Sénégal jàmm yal na yàlla tàppe xol yi ni ko maam Abdoul Aziz Sy baax doon waxee ma leen nuyu yéen ñi nga xam ne man maa leen woo parce que il faut que ñu ma préciser loolu parce que man noonu laa mel li mooy def moom damay assumer sumay responsabilité man loolu la ma àddina xame man maa leen woo di leen jaajëfal ci déplacement bi parce que taal ngeen seen ay oto ñëw fekk si ma fii ma dëkk di leen ñaanal yàlla liggéey bi ngeen di liggéey euh, yàlla na ànd ak barke ak jàmm maa ngi nuyu ñëpp fi fii maa ngi lay nuyu parce que yow laa yow laa ci miinanteel ci yow laa mën a jaar malgré xam naa waa seen Seneweb euh, liggéey naa fa ay jamono. Euh, Dakar Buzz sama ay waay lañu euh, site internet yi Sénégal seet ñoom ñëpp suma ay nit lañu vraiment site internet yi euh, ndax contribuer nañu ci sama carrière artistique bu bëree bëri malgré parfois nag ñuy am ay réero waaye mënut a ñàkk ndax sa biir kër sax yaak sa soxna ak wala say doom dina am foo xam ne du ngeen fa déggoo yàlla na leen yàlla dooli sutura waaw bëgguma sax ñu ñu ñu ñu ñu tourner autour du po parce que jot amul te daje bi moom dafay xaw a doy waar euh, ndax dafa am benn sortie bu ma fi defoon ci benn euh, malentendu bu ma amoon ak sama benn papa ci ñu ni woon dama ko tàggee woon jamono jooju suma deux heures du matin jotoon na suma jabar daal di ci jaxasoo sama doom jóg ñëw fekk ma ci biir néeg bi ni ma papa qu'est-ce qui se passe ma ne ko xamuma comprendre ma mu ni ma mais temps yëpp dama gis ay ajustement sa kaw bu ma demee école dañ ma koy laaj du ma xam lu may wax ma daal di jooy sama doom tax ma tontu ma leeral bi ma leeralee suma benn kilifa yal na ko yàlla xare àjjana Abdou Karim Mangane sama kilifa gu mag dafa génn àddina daal di ni ma man dama la mere ma ne ko lu tax mu ni ma lan ngay leeral kan ngay leeralal sa famille ak say soppe xam nañu yaay kan koy leeralal yàlla yàlla xam na ki nga doon kan ngay leeralal noon yi loo leen leeralal leeralal lu tax mu leer bu mu amati ma jëloon décision nii lu dawlati sama kaw wala suma kaw njaboot dinaa ko muñ mais lii dafa doon loo xam ni dafa ñaaw dafa jéggi dayoo dafa ëpp te daray àddina jaru ko Baay Faal bokkul troupe Soleil Levant du ci membre invité la ci dañ koy invité mu ñëw jouer kan moo invité Baye Fall man Cheikhou Gueye lu tax ma invité Baye Fall moo ma yar suma mag la suma xarit la suma confident la bàyyi suma lépp la soxnaam yi doomam yi ku muy bëgganteel di ko jël soxna fu muy voyager fu muy nekk dama koy xam parce que daf ciy diisoo ak man Baye Fall suma suma suma lépp la ku ñuy wax njàmbe seen ca troupe jànkeen production suma mag la moo ma daan jàpp ci loxo boobu damay nëbb ni damay théâtre di ma yóbbu atelier Baye Fall atelier vulgarisateur u Baye Fall bu buñ fa naanee ataaya jóge fa dem répétition moom muy defar mu mu xarañ lool ci yëfi pëna vulganisateur di defar ay vélo yooyu ngeen di gis mais nekk loon artiste comédien ñuy dem di dem di dem di dem ba ni wiili wiili ñëwee naan ma sawaay kon ko ñoom alaaji ñàmbe dugaluñ ma jànkeen ma wane sama bopp ta ngay sama xarit di sama rakk dugal ma ma ma toj réew mi ma ciy wax ak Cheikh Ndiaye ci wax ak Cheikh Ndiaye ak di ci wax ak Cheikh Ndiaye ak Aziz sax fàttali ni ma jour bi ñu duggal dugalee Baye Fall parce que sama oto même étilier yi yi jàpp frein yi yenn saa yi dama ci daan def benn peinture bu rouge pour muy rafet nii ci jant yi moo daan wekki pëne yi defal ma ko maak moom léeg-léeg ñu dem ci benn tali biir Thiès bu libre mu yónn mu téye moto ma téye sama oto ñu course ñu xool moto beeg oto bi ban moo gën a gaaw te moom Baye yàlla dafa am lu mu ko may loo xam ni doo toog ci tele di ko wax ci wàllu at ci wàllu yëfi xam-xam Baye ci ci wàllu ndeyam ak baayam dafa am lu mu xam moom Baye bi mu daan xam ni nit ku sell la nag du tux du naan du drogew tuxul naanul drogewul sàccul njublangul du def lu bon moment bi nga xam ni booba nekk naa xale di ko fréquenter par une heure du matin minuit la ñu daan dugg sama sunu tool parce que ñun dañoo amoon toolu mango bu mag ci sunu kër à Thiès minuit une heure minuit vingt deux heures n'importe quelle heure lañ fa daan dugg di dagg ay mango bu ñu daggee mango génn toog ci buntu kër gi def ndox jël suñuy paaka di lekk sa maam naan ma maam Cheikhu borom rasta yi ngay àndal ak moto bu mag bii kan la ma yéeg ci moto bi bàyyi ñuy wër biir Thiès nekk dugg naa fa ak moom suma xarit la suma mag la ma dugal ko soleil levant wiiri wiiri deux cent cinquante épisodes la defe naa ni moo gën a gudd ci série bu amagum Sénégal fii moo ci gën a gudd gum deux cent cinquante épisodes ci cinquante épisodes Laliya bi fekk rôlam ñëwagul ci la joué ci la joué wul kon bàyyi joué na deux cent épisodes mu njëkk am salaire cent soixante quinze mille francs par mois parce que ñun Soleil Levant par mois la ñuy fay du ñu fay par épisode dem nañu ba suñu producteur bi ñuy produire ñëpp xam nañ ko ni ñu yéen du ngeen am xaalis da ngeen xool nit ki ñaata séquence la ci am ngeen fay ko mu dem mujj gi mu am ay membres yoo xam ne nee nañu parce que ñii dañoo amoon deux cent mille cent cinquante mille cent mille nangam nangam am ñu ni dañuy yokk seen salaire moom bokku ci woon déedéet mu gore lool nag bokku ci woon parce que da daan def ndax man. di ma xool mu gi ñu yokk salaire yi à deux cent cinquante mille par mois deux cent mille cent soixante quinze mille cent mille ba ki ciy attaaya kiy attaaya cinquante mille francs noonu la wiiri wiiri tëddee woon salaire man maa ko daan defar maa ko fay pendant quatre ans su ma jabar da daan toog ma teg xaalis bi sama kaw lal ñu jënd enveloppe yi def ku nekk ou ma taal sama oto yóbbu Cees fay bu may dem tournage ou assise di dem weekend yóbbu ko ou ma yóbbante ko sama grand frère mu wër seen kër yi jox leen ko ci télé laa toog sa maam dafa ni ma woon Cheikhou mu ne ah ni ma boo booy dund boo waxee dëgg da ngay dee boo fenee da ngay dee waxal dëgg te dee barki salaatul fatiha Cheikhou boo jubee dee boo dëngee dee jubal te dee ci dëgg rek laay nekk barki Mouhamad fifi du ngeen dégg ci àdduna mukk jamais ba bis buñ may sàng suuf ñu ni saa neex na du ma fen mukk ci àddina barki salaatul fatiha du ma fen mukk ci àddina ñi may àndal dama naan leen lu ñuy def na doon lu leer parce que bu demee benn niveau bi li ciy dëgg laay wax xamee nañ ma ko man eh, amul ay sama jabar nga ak ay ay danga maa takk ak danga ma dama lay faral de eh lii damay tranché mu leer parce que loolu la yàlla bëgg ñuy fay Baye Fall mujj gi deux cent mille par mois sur deux cent épisodes de quatre ans il va pas nier ça ah liñ la daan fay nag ñaari fan nga ko daan lekk yow la concerné ci benn fan nga ko daan lekk yow la concerné mais bañ la ko daan fay daan nga ko jël fay nga ci ndox ba tàyyi fay ci courant ba tàyyi jënd ci ceeb ba tàyyi jënd ci diwlin ba tàyyi mosoo ñu koo delloo sama mu ni ma boo taggee nit tey xas ko ëllëg war nañ laa ragal bàyyi toogoon fu tagguñu mu doon lu dëggu ci moom moo toogaat démb xasaat ñu ba àdduna jot ci moo xam mag moom ñaar yooyu moom yow bàyyi yaa xam ñaar yooyu yow ban nga ci du ma la juger parce que tu es mon grand frère fay nañ la ko quatre ans maa dugal Baye Fall ci troupe bi bokk ci i déedéet invité la ci du ci membre ñun duñu société amuñu imputation budgétaire buy wane ni ku fi feebar dañu lay fat commenceel nga xool am tekkil say lunet nga takk nga wax ma verre yi lan la essayer pour voir lii lan la joxal kii essayer pouvoir voir yi verru lan la verru mi jox ma maa ëppale degré Baye Fall maa gën a miyob Baye faal maa gën a gëlo comme Baye Fall regardez est-ce que soleil levant moom ma ko faj j'ai trois lunettes bu ci nekk ëpp na deux cent mille francs parce que dama am lunette ci sama ñaari kër yëpp ak sama biir oto bu ma bu ma daanelee ci sama œil gauche bi damay toog fi ma toog ba ba muy ñëwaat man maay traité sama bopp soleil levant joxuma ko vous voyez que ni depuis deux ans le pays ne marche pas On n'a plus de sponsors, on marche avec les moyens du bord, de bor pour, pour, pour, pour, pour, pour, pour. La hawla wa la hawata illa billah. J'ai fini. Aziz dina ma baal parce que maa ngi koy waxal loo xam ni mi ngi ko denc. Aziz dafa am doom. doom ji génn àddina ndax handicap. mu amaat doom doom ji indi handicap ci bët ay millions la pour ñu rectifier bëtu xale bi te Aziz ñaanam koy fayal boppam ak di ci dund taxawul fenn yuuxu ko Cheikh Ndiaye jabaram dee ci kawam diggante Canada France mu fay faju ci moyen boppam taxawul fenn yuuxu ko ndey Binta Eh, eh, eh, marelepis arthrose yenn saay tànk yi day dem ba du mën a dox mu faj boppam kenn yëgu ko Binta Samb goitre ba mu avancé ba nit ñi ci télé bi naan lu tax bëtam yi di génn mu faj boppam kenn yëgu ko man je suis en train de dama traité sama bopp kenn xamu ko ku njëkk a yuuxu danga nga ragal te maa ngi xamal ni li as di dunde yàlla bu ko saay-saay xam pourtant nous dañu on reste dans ce pays là di am ay problème yu ñuy weng-wengaaral au niveau de notre famille man ñaata yoon laa jaay sama oto pour régler sama problème combien de fois laaj ma ñi ma xam je peux acheter une voiture à vingt million quinze millions tout de suite ma jaay ko douze millions naa faj sama soxla rek te bañ a ñaan les terrains que je que que j'achète di ko dindi pour sama doom wala dencal ko sumay jabar pour kii yenn saay ma jaay ci faj sama soxla li as du gor di dunde yàlla bu ko euh, say-say xam ñun mën nañu nekk fépp ñun mën nañu régler lépp ñun mën nañu faj ñëpp dama leen di giñal ci màggaayu yàlla li ñuy régler ci réew mii man ak Cheikh Ndiaye ak Aziz te kenn xamu ko sama message yaa ngi ni ku ne di ma envoyé message li ngeen di réglé ci réew mi li ngeen di réglé ci réew mi benn presse musu koo fekke kenn musu koo xam te ñooñu ñu ngi leen di réglé fi fi est-ce que xam nga man damay dox ba ci yàgg rek benn nit intercepté ma ni ma merci ma ne ko comment mu ni ma sama doom ji wér na ma ne ko ci lan mu ni ma ba mu amee nangam ak nangam yaa ko faj waat ki Mouhamad dama koy fàtte sama xel sax du ci dem combien de fois am na ci koo xam ni genre góoru robaale la yoloon dama ko faj ba mu gim góom bi wér mu koy bànd di ma nax sama yaayu jabar moo ma ni wér na mu daw gisatuma ko Baay Faal man la saraka Cheikhou Gueye man maay wax ak yow xamoon nga ni man dama mi xamoon naa ni danga nga parce que lépp tournage lañu doon fekk Baye Fall ñun am nañu ay handicapé sunu kër yi sunu ay doom yoo am handicap bu fekkee mës nañ la toog tournage di la ñaawal ci sa bët yooyu ak ci sa handicap yal nañu ko yàlla won Baye Fall loolu mësul am yow yaa daan ñëw ni man de sama bët yi jaaxal na ma Baye Fall est-ce xam nga benn bis dafa dawal motoom jël autoroute contresens ndax jaawale mu ñu koy nettalee di ree bu ñëwee naan alaaj seexu ana mu fu ngeen féete waaye di def nii entre artistes quoi mais kon tey bu mu dem micro yi tiim la ay nit jege la xaw ma noo ko gisee nga daal di culpabiliser wu sosal ay nit rafetul bàyyi siq nañu lu ëpp loolu ci àddina bàyyi ñaata nit ñoo la teral ci àddina ndax soleil levant ñaata nit ñoo la solal yére dàll ndax sunu jëmm yi xamoon nañ la mais doon Baye Fall vulgarisateur doonu Baye Fall jaaykatu pëna da nga naan bàyyi Fall bu wiiri wiiri la Levant nga étiqueté sa bopp malgré bokkoo fa ku la teral à 97 pour cent ci sunu jëmm yi la la teral bàyyi fàttalikul ñu sax bu dee benn fan boobu fàttalikul sax bu dee ñeenti at séq naa ko ak yow Soleil Levant di la fay salaire même bu dee salaire bi nga ni ñaari fan nga ci daan dund Baye def nga lu ñaaw. póot mu salte ci biir néeg ci biir néeg lañu koy faje ci sa responsabilité bopp la nga ñaan ndimbal ku nekk yow la engagé yaa xam ni ngay defalee sa fii yal na la yàlla wéral yàlla na la yàlla suturaal yal na la yàlla delloo la nga yoroon ci say bët bu fekkee am na ku nekk soleil levant yéena la li nga nekk yàlla nañ la ci jiitu en l'occurrence man mii wax ak yow Cheikh Ndiaye dafa naan ma allo Ndiol ma ne ko woy booy Bonuspieux la ñuy woonte Bonuspieux ma ne woy Bonuspieux mu ne ma mais booy foo ne ma ne ko wër rek mu ne ma wër na ma ne yaa ngi ci ci yitte jàmbur yi di dox rek booy noppalikul mënoo def lépp sama aawa danaan ma Cheikh Gueye mënoo def lépp mënoo satisfaire ñëpp te doo ci am lu la neex ma ne ko ma am ci yàlla ma am ci yàlla te fifi yéen ñëpp ak ñi fi teew ak Sénégal bu fekkee yëgoon nañ ni bay Faal bëtam yi àgg na foofu lu ñu sóoboote yàlla bu mu àgg ñun ni ngeen ko yëgee ñun ñëpp man fii laa toog ñu lalal ma may reer bi may yëkkatee seex dégg mu wax loolu fi fi démb ci añ laa gëj a lekk ba léegi regardez mes yeux nelawuma lekkuma màngo ngeen fekk ma koy lekk nii je veux di du tout Fifi man bugguma lu ñaaw man Cheikhou Gueye du def lu ñaaw man duma tooñ mën nañ ma étiqueter lu nekk man du def lu ñaaw dama ko ragal man bugguma musiba bugguma ko man ci dox lu baax rek ak def lu baax ci laa dëkk wax naa ci saleer yi wax naa ni bokkul ci troupe bi tournage boo xam ni da ngay toog sa kër wala sa place ba mu neex la ñun la aloo bàyyi sa séquence jot na nga taal sa moto ñëw tourner sa ñaari séquence il tournait deux fois par mois ou au grand maximum trois fois par mois mais fii fii ñi fi nekk di liggéey par mois ñu leen di fay soixante quinze mille te chaque jour ñu xëy di ci paas di ci lekk deux fois ngay liggéey par mois ou trois fois par mois benn responsable ci troupe bi ni ñu réunion mu ni léegi nit ñi dañuy toog deux mois ou un mois duñu ñu tourner ku tour ku tourneetul la fay j'ai dit non loolu du fi am ku tourné ñu fay la ku tourné wul ñu fay la solo la avant looloo fi am ku tourné ñu fay la ku tourné wul ñu fay la choix mu nekk ci jamonoy coronavirus kenn mënul am sponsor ñu waxtaan ak producteur bi producteur bi ni bon bu ngeen amee ay sponsor prenez télé bi am sponsor jël après ñu def compense yi ngeen ki on on s'est réunis ñu ni loolu moo ëppal xaalis ci ñun fifi ñu dugg ci choix benn sponsor ñëwul te commencé nañ ko il faut ñu àggale cinquante deux épisodes yi léegi ñu xool ñi gën a flexible te dëkk à Dakar c'était ay Kati Mansour Mbaye Madiaga Père euh, ma euh, Pape Faye ay ñun ay gis ngeen ay Binta Samb quatre fois la ñu joué ci choix ay vie ba nekk majeur doom téye pièce bi li mu ci feeñ matul six fois fu nekk ñu dugg fa pour satisfaire les Sénégalais demuñu sax Thiès tourné ji su suñu base parce que foofu lañ doon tourné on restait à Dakar ñi toog Dakar ñu tourné paay bu fekkee loolu la mer banaan bañ ma jëlee def ma lële duñ ma jëlaa def ma lii c'est pas vrai dafa def ni dañ ko génne ci choix bi te choix bi c'était pas possible pour ñoom ñëpp ñu dajawaat dañoo jëloon ñi nga xam ni dañoo dëkk biir dakaar ñu tourne ko pour àggale et puis euh, première saison bi mu ñu jeex deuxième saison bi ñi ngi ko nekk di ko préparer nii ñu xam fan la aw pour delloowaat salaire yi fa mu nekkoon Soleil Levant yooyu salaire moo fi am. ñu tourné wuñu ci ay cinquante mille ay ay ay cinq mille francs ki vingt cinq mille francs déedéet te puis dañ lay topp producteurs yi nañu def attention bu baax a baax a baax a baax ñoo lay topp muy góor di jigéen jël ma damaa bëgg tayaat mën naa feeñ rek mën naa siiw rek jël ma nga jël leen ñoo lay njëkk a yàq ñi ngi yàq producteurs yi ci loo xam ni la ñu waxanteeg producteur bi producteur bi rus na koo wax parce que amul jotu toog di ko wax ñaaw na ñaaw na trop maintenant ni ngeen ko yégee ñun noonu lañ ko yëgee bàyyi man sama mag la sama xarit la bu amee lu mu soxla ci man dafa may def nii alaaj seexu ma ne ko waa bàyyi foo féete sama kër bi mujj bi dama ni ko bàyyi ñëwal ñu añ mu ne ma déet du ma mën a añ si waaye dinaa ñëw naan si warga ñu ñu daal di def sunuy sunuy war wagaaj ñun noonu la ñuy waxantee mu daal di ñëw toog am na keneen ku mu àndal waxu leneen la fa wax gis nga bàyyi ça fait dix mois ça fait mois parce que jour boobu ñoo ànd ma dox ba ba ba ba ba ba ba armeeru Yoff jëli sama oto ñu koy raxas foofu ci jamonoy couvre feu bi la woon ma naan ko gaawal balaa balaa ñibbi dem parce que moom il est toujours euh, ci mari au maris maris lay nekk saa yu ñëwee Dakar ma ne ko gaawal nga ñibbi mi ngi doon dox di dem takk ay veeram ak léppam mais ñun xamoon nañ ni myope na comme ni ma myopee comme ni neneen feebaree mais statu yëgoon nañu myope bi bu yàgg parce que comme man mii ak ñëpp ko mais statu bët yi dem na ba gisatul démb lañ ko yëg. waaw ay téléphone quoi nangam parce que wax na ko ni ki ci gën a siiw dinaay dégganteeg moom ñeneen ñi du ma dégganteeg ñoom nangam parce que man may xaritam ñeneen ñi duñu xaritam sumbulu bi ma ko woowee tey ci suba ni ko Baye Fall kañ la sa bët yi toll fii dafa ni ko dama doon sooxaale ak moom na ni Baye bu ñëwoon sama kër ni ma dama la soxla comme ni ma ko daan defee dox ay soxlaam ñibbi bu ma nee gaynde foo ne ma ni ko maa ngi sama kër mu ni ma maa ngi ñëw daal di ñëw ni ma gaynde sama bët yii weesu na ay lunette léegi mi ngi ci jamono yi damay gisatuma nii laay def envoyé ñi may envoyé message deux minutes dañ may woo parce que bi affaire bi amee madame Kabou Lonaas moo yor seen fondation damay tudd tur madame woote na directeur u LONASE beeg yëpp ñu ne ma lu tax loolu am sa kër te ñun yëguñu ko man leen maa ko man yéen a ko yëgandoo daal di joxe numéro waaw directeur programme national bu ophtalmologie bu Sénégal bi Macky Sall dénk yëfi bët yi sama cousin hôpital régional bu dakaar lay bu Thiès lay liggéey hôpital régional bu cees Babacar fay yaayam ak sama yaay bokk ndey ak baay directeur bi programme bi ci moom la aw pour woo ma moo yor plan moo yor euh, programme national ophtalmologie woo ko ni ko loolu nan la mënee am kër Saneex te yëguma ko ma ni sama cousin bi man démb laa ko yëg ni bàyyi ci sotul mu ñun numéro ma joxe numéro Mbàkke Jum ku ne xam na ko bi fi Jóob Faal amee problème man Cheikh Ndiaye Aziz Mbacke jum ak Moustapha Diop 37 5 ñoo ci nekk kenn mus koo yëg ba niñ ko évacuer yóbbu ko woo na ma démb ni ma nan la ma ophtalmologue nekkee ministère des finances fi jàkkaarloog moom ñun ñu am fop lu ñu war a mën def te waxoo ko ma ko ma ni ko Mbacke yógu ko man ak yéen a ko yëgandoo daal di joxe numéro dama bëgg a waa Sénégal ni lii faj Baye Fall du sunuy koppar coup de fil wala benn message mooy faj Baye Fall nan lañ ko koy iñaanee ak nan lañu mën a soxalee nun à ce point te moom mu xam bu amee soxla fan la may fekk ak bu bëggee waxtaan ak man nan lay def ba waxtaan ak man rakkam laa xaritam laa na ñëw ci man kon du àgg ci presse lii la du léegi nag fi may daanale mooy bu fekkoon dama yëg wala dañu yëg defuñu bu toogee ni fa ma ko war a waxee waxe naa ko fa dañ koo fajul dans ce cas ñu xam ne kii wax dëgg yàlla li mu war a def def na ko mais ñoom dañoo jékki-jékki rek affaire bi daanu ci sunu kaw jaayul moto bi faj ci ay bëtam attends dama lay wax tere yi nag yàllaahu yaxlam wóoruma dafa ñëw sama kër ma ne ko bàyyi ana moto bi parce que man dama bëgg yu fi machine mooy dix mois ba mu mujjee sama kër noonu corona jamonoy corona bu njëkk ba bu kii ba bu fan deuxième vague bi xaw ma na mu ne ma alaaj seexu amatuma kàttan pour dawal moto bi moto bi dafa bëri fitna dafa dafa bëri ay gajang gajang moto bi ay benke ñenkeem dafa bari xam nga noonu muy wax ak man léegi ma léegi alaaj seexu yow yëgoon ni dënd naa daamaar ma ne ko da am oto très bien baay mu daal di may wan ci portable am muy ab Clio bu ñuul bu deux port kon xam nga man li may wax dama koy wax mu ay éclaircissement lay joxe mu ni ma Clio bu deux portes mu wan ma ko ni ma damaa paan moteur waa léegi say bët neexul nga jaay sa moto bul jënd oto. ku jaay sa moto kay jënd oto parce que gis nga pour dawal man de moto bi jaay bi ma ci yëg oto la ci jënd jaayul moto pour faju mais soxna si man damay jaay sama alal di faju man du man maa jël responsabilité di wax man damay jaay sama alal di faju damay wax benn wax sànq ba tey di ko répété waat xëy na nit ñi duñ ci rendre compte dama nii la as gor li muy dunde yàlla bu ko saay-saay xam maa ngi koy wax di ko waxaat rek te ku njëkk yuuxu danga ragal de as gor li muy dunde yàlla bu ko saay-saay xam man de li may dunde yàlla bu ko saay-saay xam ah ah yow ay yonenti beeg ñoom Jésus Christ ak mag ñu baax ñi gën ñu daan nekk ci ay tolof tolof ñun ñooy ñan nekk ci ay tolof ku mënul bii ci réew mii dangay ngay ci ay tolof tolof te ñun mënuñu lii duñ ñaan wayaanuñu ñaanuñu kenn na kenn taxaw fi nii dañ ko wayaan wala dañ ko ñaan nañ ko wax wayaanuñu ñaanuñu on est digne et on restera digne dañuy am ay problème kay dañuy am ay problème bu baax a baax a baax a baax a baax sax déggoo ma ne la ñaata yoon laa jaay sama oto faj sama soxla déggoo loolu déggoo ma la léegi ñaata yoon laa jaay teene yu ma moomat sama bopp faj sama soxla ak ah kay soxna si ak <laughs> ah kay génnal fii nga dem laaj ku ne troupe soleil levant kan moo yëg ni bàyyi gumba na waxu ko waxu ko kenn billaahi fii fii ma toog laa ko yëgee ak saan gii ma julli yàlla bu ko yàlla nangu fii laa ko yëgee mais soxna si dama ni la li mën a résoudre problème mu Baye Fall du jóge ci suñu poos kon nan lañ ko koy iñaanee ñun ñi koy defal ñeneen ñun ñi koy defal ñeneen te li may wax ni am na ñu koy dégg di ko gis ñu commentaire ko affirmer ko wala ñu génn ci télé bi affirmer ko am naa journaliste yu ko affirmer parce que yu ko xam xam jikko jooju ci ñun ñett Aziz day ñëw rek ni ñu booy bon génn benn feuille ni bon situation bi moo am kii diw la tudd fii la dëkk fii la dëkk problème mu nangam la am ñu taxaw man ak Cheikh Ndiaye ñu ni bon léegi qu'est-ce qu'il faut ñu ni nañ leen cotiser ñu cotiser jox asis ba si basa ngi jàkka ba si ciment yi jàkka ba ci ñi nekk ci prison bi ay ay prison yi ay ventilateur ak ak yeneen ak yeneen ak yeneen musuñu cee yóbbu kenn ba jël caméra mu topp ñu li ñuy def ñu ngi koy def ci suuf ni patt toog jàpp suñu ñàmpur kon du Baye Fall mooy am problème mu bët nekk suma xarit nekk suma confident Baye dafa mës a ñëw tournage mu daal di sol benn njaxasu benn ensemble jiin caaya bu rafet takk benn collier yëfu bàyyi faalam yu garaaw yooyu muy def ndeysaan man ko bàyyi li nga sol dafa rafet mu dugg ci saal bi si meeku sol beneen yére def ko ci mbuus jox ma loolu sol naa ko am ko ay photo fii day jékki-jékki ni ma euh, njool walla euh, foo ne alaaj seexu ma ne ko kër ga mu ne maa ngi ñëw nga yippil ma mu ñëw jël lu ko neex dem bàyyi dañoo seq lu bari ci àddina nee naa la bàyyi maa indi soleil levant bokk fi maa ko indi pour mu jouer ci wiili wiili bi ñun signé wuñu ak Baye Fall ni ko boo feebaree dañu lay fat ñun amuñu imputation budgétaire bay day teyaat bay dem ba nga xam ne amatul jotu atelier bi mu bafa fa doomam ju ñuy wax saaxo muy xale bu baax bu jiram papam ba mu wax ma ko ni ma kontaan naa ci sa doom ma woo bàyyi ma woo saaxo bu félicité ko amatul woon jot parce que fu nekk lañ ko doon woo muy géej ay xarmattu boppam booleeg atelier am waaw ñun tamit dañuy théâtre am sunu yeneen xar matt moom mës na jël fukki dërëm ni ñu am leen faju si te ñun ñu sunu feebar yi ñu yëg wala am leen dépense su ci parce que ci atelier bi la jógee ñun est-ce que dañ ko daan dagg par mois ci affaire médicale pour ni ko boo boo feebaree ci lañ lay faj. non mm, non non non non non non non euh, man bu ma nekkee ci lumière nii nii bu ngeen génnee sama œil gauche bi du clair trop damaa dem wuti ay ay lunettes boobu takkagul woon ay lunettes boobu problème mu myop lañ doon waxante lañ moo xewoon il était il était question de de de de myop myopie après ci la dem jënd ay wuti ay ay lunettes mais problème bi ñaari euh, li mooy yëg nañ ko di ma sabote ak ñàkk wax gi mu ñu ñàkk wax ni moom fi mu toll toll na ci gumba ñun lo ñun loolooy sunu question ñun fi mu toll nii ñun loolooy sunu kaa lañ ko doon fay mu ñu koy xeebal diggante la ma ak yàlla. moom la rek mais ko mais mais mais koo fay ñeenti at mu di ko jël kay koo fay ñeenti at mu di ko jël kay c'est parce que du problème mu prix ngeen am non non non non non bàyyi du bàyyi du wax yooyu il n'est pas nit la nit lu ngeen am contentieux contentieux waxal ko jikkoom bàyyi du du du du genre buy xeeb ay ay ay affaire loolu suma loolu loolu moom la rek duma ci wax parce que jullit la bu fekkee looloo amit moom la ah gisoo gisoo gisoo ñeenti nit ñeenti ay ay ay gisoo fondation Sonar euh, euh, fondation Lonas jox naa leen seen numéro directeur national ophtalmologue bi yor pro bi Macky Sall dénk affaire ophtalmologie Sénégal bi yor programme bi mi ngi ak numéro am Mbacke Dioum médecin naaru libanais yeeg yëpp ñëpp pare nañ ñi ngi numéro bu ma amoon lu may denc kay du ma joxe numéro am boobu te dama ne la gisoo ma ne la man bu ma ko yëgoon du àgg ci troupe bi sama diggante moom lay doon déedéet du ma diggante ak moom aussi. Euh, dama koy bàyyeeg ni xelam toll. xamuma. Ah, ku ma woo pour dimbali ko. dinaa insister pour nga dimbali ko. mais baay moom dootuñu woo. dootuñu dootuñu woo. man de am man man man de man de am na loo xam ne bu ma ko xësee wax nit ci àddina dootuma la woowaat parce que as gor laa moom ab Baay Faal la moom moom ab Baay Faal la na boo ji koy Baay Faal gi rek waaw Baay ñu nag moom yàlla dinañu àtte amee lu ma àq waxuma ne damay ameel àq dafa wax dafa dafa dafa dafa dafa wax déedéet déedéet waxuma loolu dama ni yàlla na ko yàlla may wér parce que lu waay yéene nit ci lu bon damaa defe ni doo asgor wala doo jullit wala yow mi doo nit yàlla na ko yàlla may wér ci bijjaahi nabi Moustapha amin yaa rabbal alamin Baye Fall yàlla nga wér ak jàmm te billaahi baay bu fekkee sa feebar bi ñun tollu sa miyop bi tollu nañ ci xamoon nga ni ñun xamoon nañ ni danga gumba baay génnal ci presse bi nga wax leen ni ñii may waxal xamuñu woon sama feebar fu mu toll bisa ngi ñëw ñu wuy ji sunu borom de bi sa ngi ñëw ñu wuy sunu suñu borom bu ma ko yëgee buñ ko yëgee mu xool ndax dina faju wala du faju mais fi waa d'accord yëgu ma ñun yëguñu billaahi wallahi wa taalaahi bàkki Cheikhu Tidiane yëguñu miob bi moom on était au courant comme tout le monde comme ni ma dalee dalee ñëpp ñoom mais stade u bañ a gisati bi démb lañ ko yëg benn ñaar yàllaa ñu sàkk ñun ñëpp mën lépp xam lépp mate fépp tabaski ji paase am na ñu ñu gën a jege yàlla dàq ñoo julli dàq ñoo woor dàq ñoo jëf lu baax du ñu jëw du ñu tooñ te naru yàpp sax amuñu ko yàlla la neex ah jojoog Cheikhouna ak saa neex daal ñoom Euh, ñoom ay ay messi lañu daal ñoom daal ñoom ñoom ñoom daal ñoom daal ku ku ñoom feebar rek war nañ la mën a faj fifi lépp dajul ñu mënuñu nekk fépp ñu mënuñu mën lépp on est riche nangam nangam nangam ngam ñi ngi sant yàlla parce que li ñu bëgg a faj ñi ngi koy faj ti li ñuy fajit ñi ñi ñëw pour ñu dimbali leen ci ñi ngi leen ciy dimbali jeex na mais léegi nag kuy dimbali keneen di nga bàyyi Baye Fall mi taq ci ñun malgré bokk fi mais di nga bàyyi Baye Fall suma mag la fi fii Baye Fall suma xarit la moo ma yar fi fi Baye Fall moo ma yar suma xarit la suma mag la suma confident la suma lépp la fi fi Baye Fall sama lépp la est-ce que fa ñu nekkoon dañoo digle ak ñoom nii bu ñu feebaree dañ leen a war a faj. est-ce que sénégalais yi tamit du ñu arrêté di culpabiliser wu est-ce que sénégalais yi tamit ñenn ñi laa wax artistes yi du ñu arrêté woyaan gi ñu nekkeek ñaan gi ñu nekkee ñun daal ñun artistes comédiens yi ñun rek ay feebar ñun rek la ñu war a faj ñun rek am soxla yeneen sénégalais yi lambda yi nag ñoom daal ñoom daal kenn waru leen a faj ñoom daal amuñu soxla ñoom ñun daal. ñun daal ñun yenn artistes comédiens yi daal ñun daal wayaanuk dañoo feebar gi daal ñun ñoo jël joggati gi daal ñun ñoo jël pay ak senegal léegi daal ku bëgg yàq sa moroom walla ku bëgg a am as tuut toog yàq sa moroom ba mu yàqu yaxeet pour nit ñi yërëm la déedéet déedéet déedéet déet man loolu sama yoon nekku ci man ndax da koo def pour defar boppa mag da koo def ngir am sa tuut ak yooyu duma ci dugg indil kayit geeg ñàkk indil kayit gi duma ci dugg duma liir commentaire musuma liir commentaire kenn nit munul fexe ba ma liiral la commentaire ci àddina liiruma commentaire u kenn sama waa kër ñemewuñ maa nettali commentaire liiruma commentaire u kenn daggal say saaga ba tëdd ca naaj ba doo ko defee sama kër doo ma ko defee ci tali bi man kenn du ma dab ci tali bi di ma saaga kenn du ma fekk suma place liggéeyukaay di ma saaga kenn du ma fekk sama biir kër di ma saaga gis nga soxna si man dara ñoruma xam nga lu ma ñor li nit ñi di waxak di ma fa dëkkal ak di ma ko xoole ci lu bon ñoruma li ci sama xol bi moo ma ñor te xam naa ni mooy dëkk man je suis une personne pure man nit ku sell ku baax laa man nit ku yërëm nit laa man nit ku mën a sonn ci nit laa dadi nag dañoo toll ci réew moo xam ni lu fi waay di def da koy taal làmp yi loo fii def dangay ànd ak sa portable kenn dar la wala nga teg sa caméra ñu dar la ñu nekk ci yooyu ñoruñu amul ku nekk ci réew mi dàq ñoo def lu baax amul ci lañ dëkk soxla wuñ koo médiatiser ñun te duñ ko baax dama ni Baye di nañ ko faj mais léegi ñun ñun ñun ñun ban oftalmo ba ñun suñu oftalmologue yi cuune nañu cuune gu toll ni ñoo faj Baye Fall bàyyi fii ngay toog ci réew mi ñu fajale fii ci réew mi boo bëggee dem France neneen nga fay deme damaa dégg mu ni France lañ ko mën a fajee. waaw waaw li loolu dafa nang dafa nang non non non non non non non dama ni dama ni dama ni dama ni ki dama ni dama ni ki yor ki yor ki yor programme national ophtalmologie nit ñi fii nous avons des experts yoo xam ne ci bët fii amul dara luñ la fi mën a luñ la fi mënul a defal ci intervention chirurgicale ci bët amul fii ay ndaanaane fi nekk quoi Sénégal ay ndaanaane fi nekk ci wàllu bët ak ay ay yooyu dama ni la ñun euh, euh, passeportu Baye euh, passeportu Baye Fall bu ma juumul mi ngi ci Cheikh Ndiaye ba léegi ou nga xam ne bi mu ko delloowee yàggul déposé nañ ko ñun ambassade France ñu rejeté ñu rejeté ñu. waaw waaw pour ñoom ñëpp ñu am visa rek. ah ah bis bu feebar bi demee ci pour ñu déposer ko pour mu dem bu ci kenn doxalit kenn bu ci kenn doxul. ñun dinañ ko yóbbu mais loo yëgul rek yëgoo ko dama ni la bis bu tolloo ci ni moom dafa war a dem faju ji parce que dem faju ji bis bu docteur bi waxee fii ni ah ñun kat sunu kàttan sunu xam-xam sunuy compétence weesi na bëti bàyyi faal am na médecin bu nekk ca France recommandé nañ ko ko médecin boobu daal di ni waaw niñ ma envoyé dossier Baye gay mii njort naa ne wala xalaat naa ne wala mën naa cee def intervention ba mu jotaat ay gëtam ambassade bi du la rejeter visa bi dañ lay may loolu sa forcé mais kantaan nag nit loo yëgul bàyyi man la sa xarit Cheikhou géey yëguñu benn yoon naanewuñu ndox benn yoon ni sa miyob yooyu àgg na ci mënootoo gis bokk nañoo ak yow naqar wi ànd na noog yow liste baa ngi nii ñi woote punkal yi woote ñëpp jox naa leen seen numéro wuyul ñëpp liñ ci war a def dinañ ko ci def te coow baaxul wax baaxul lii la dal nii bu mu la dalaat dangaa juum fi ñu jaar ak yow moo ëpp lii nga def nii delloosi sa xel xam nga li ma la wax loolu du du décision wu ku nekk ku nekk loolu décision personnelle la man suba suba mën naataal taal sama oto dem dem ci moom mais dama bëggoon def lii nii ba indi ay leeral ñu xam ni ñun yëguñu woon métit wi ko dal ñu xam ni ànd nañ ci ak moom ñu xam ni it faj ko euh, jógewul ci sunu poos te lu yomb la pour ñu jël ko en charge parce que li ñu li ñu jëlal ci nit en en charge ëpp na téeméeri nit te kenn mosu koo yëg mu xam ni it bu ko àddina jaralati lii comme que fii la toogee woon waxee ko fa it ñun ñu toogee fii waxee ko fi rek après bu ñuy dajale waat ñun bu ñuy daje waat ñun neen ci sunu biir ñu daje. mais ñun ñun ñun ne ñun ñun ñëpp dañoo xam laa lay wax nii nga naan ma lan ñun ñëpp on est tombé par terre kenn lekkul ci ñun Aziz moo ci ëpp kersa dafa feebar non venant de Baye Fall quoi. gis nga ñun bu ñu kenoon defaloon vidéo saaga ñu wala xas ñu am na ñeneen ñu def ay vidéo yëguñu ñu sax ñu ñu ngi dund